76 98 76 532 64 17 Ndiaye Global Business mbégte kese la. asalaamaaleykum mbokk internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee yéen ñuy suivre sur Kewel Info du nuyu kilifa diine yeeg kilifa aada yëpp. tey nag ah, ñu ñoo fii si caaro yi ñoo seet champion bu ñuul kukk bi kon ni ko gars yi di waxee muy Coly Faye numéro 2 gannaaw bu mu bëree combat am la 26 juin fee ci arène nationale. ci diggante moom ak ki nga xamante ni moom mooy Ada mu nekk journée euh, LP production ak Petit mu nekk journée boo xam xamante ni journée bu neex ñu gis nag combat ba lépp la fa am di félicité nag ki nga xamante ne moom mooy Ada di félicité nag ki nga xamante ne moom mooy Coly Faye ndax wanewuñ fa tamit ñàkk fayda bëre nañ xam nga def nañ li ñu waroon a def yëpp euh, bi nekk première sortie mu nekk koo xamante ni nag kon niñ koy waxee rek yor esprit sportif ndaxte bu ko neexoon suñ ko woowee mu ne non non dañ koo woo mu ne ñëw leen ñu waxtaan waaw di ko ñaanal nag bu baax a baax ah, li nekk ci kanamam nekk lu rafet ñu fas yéene waxtaan ak moom ci làmb ak combat bi pendant avant et après dañ koy bàyyi mu nuyoo moom Coly Faye borom 20 ans yaa combat 16 victoires 5 défaites nekk palmarès bu riche boo xamante ni am na ñoo xamante ni bëre nañ te amuñu ko Coly Faye maa ngi waaw Fatima maa ngi lay fay onze billahi na waani yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba dinaa ma sant yàlla julli seen i gërëm sama ñaari waajur maa ngi nuyu caare yëpp caare jàmmagal lam saar Sikaab baale bi yëpp daal waaw Sikaab Mbaaw Fass Mbaaw Petit Mbaaw Grand Mbaaw Zac Mbaaw gi ma def Tëngéej maa ngi nuyu di sant ñëpp waaw di nuyu waa baale bi yëpp daal Pikine fépp bàyyi ma fenn maa ngi nuyu ñëpp waaw képp fépp foo xam ne si banlieue bi rek caara yëmbal buun fépp waaw maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp képp koo xam ne yëkkati nga sa kuréel ma ñaare maa lay sant di la gërëm di nuyu sant sama ménagère bu baax père Bourkhane Wade su ma demee ba toll fi yàlla ak moom la sant suma ko super àlla ñoom père Baye Diop sama gars yi ñëpp maa ngi sant ñëpp képp kuy sonn si man rek di nuyu waa caare gépp di leen masaw si lii lii passé xam la xam la di leen xamal ni bu bëggee wuñ ko woon nii daal mais suñu borom moom bu bëggee yëppay ñàkk waaw di jégaluwaat ñëpp daal. am na solo euh, Coly Faye euh, sa combat ak Ada Fass Coly Faye amoon na euh, yeneen proposition ak yeneen adversaire Ada Fass ñu ne xaalis moom moo tax nga jël ko ñu ne yaakaar da nga yaakaaroon booy bi dafa yomb mais sa combat ak lan moo ko wundu lan moo taxoon combat bi nga choisir Ada Fass la wala lan la. non du question choix sax dama tegal. duñu ma tegal man tegaluñ ma ñaari adversaire benn adversaire lañ ma tegal sama kaw papaam doy la doon dox ba combat bi taxaw promoteur bi promoteur bi xañ ma ko ndax la ay trois cent mille deux cent mille. yàqu waaw. promoteur bi moom naa ko wàññee man ko dërëm du ma ko wàññi. ndax yow parce que man doo ma gën a yow yéene woo ma man waxaale ba pare war a génne bu mu waar ma ne wàññi ndax yeneen promoteur ne liñ tëgg li mu fay dafa bëri. lim la fay bari dafa bëri waaw dafa bëri ne kon yow yéene woo ma man la wàññi dërëm après si laa toogee combat bi man su ma la waxee dëgg rek bi muy taxaw man foogee ma ko bi muy taxaw ñoom tamit ñu war a bëreel foogee wuñ ko ndax combat avance bi du woon pour man dañ ko doon ñu wàññi leen indil jël ko. kon sa combat ak yow yaakaaroo woon ni sax combat bi dina am. non non yaakaar ma ko ko yóbbul benn mbër buñ ko yóbbul ndax. buñ ko doon yóbbul. bi. gars yi tourné ko indi ko si ma jël ko. dañ ko doon yóbbul gars yi jubal si yow. waaw te dama ko jël alpha champion la daanaan la. léegi jël ko da nga koy jël ànd nga ak sa xel wala dama koo jëloon pour fetal ko dama ko doon liggéey liggéey bi moo tourné rek yàlla suñu borom moo àndul ak ma dama ko doon liggéey. nga jël avance su Ada nga ni combat bi ci wax wax waru la après nga ci communiqué lan moo taxoon loolu. waaw wax waruma ci liggéey moo ma ci waroon. liggéey rek moom moo ci waroon te mooy li ma def def naa li ma war a def yëpp ànd naa ak samay xarit ak samay mbokk yëpp ñi daan sonn man yëpp sonn nañ ci man amul Jean amul Paul si dama koy sant bu baax gis naa taxawaayam def si combat jàpp na si côté bépp waaw ma koy sant bu baax moom Omar Kane rek ay Maam Lamine Abou Ndiaye sama gars yëpp ay Thiar Fora Yile Youssou ak mbëri Thiaré ñoom mbëri sa mère ay Baye Mandione Junior bas 2 beneen bas bi encore ah Baam Ndione ñëpp ñëpp jàpp nañ si daal boo ay Boylo ay Sathiès ñëpp jàpp nañ si képp kuy xalaat képp kuy mbër caare fere jàpp nga si combat bi ak Lamsaar ak Diamaguène fépp. Hmm. combat bi ñu ne Coly Faye dafa am ñeneen ñu la wax jëlal combat bi mais yow bëggoo woon jël combat bi. non loolu ko dégg de. Ah? non non loolu amul de. ko jëlal sa propre. maa ko jëlal sama propre. maa ko jëlal sama bopp man laa ma jël maa ko jëlal sama ma ko man maa ko jël. te gëmoon dama koy fetal moo tax. làmb nag boo deful heure boo deful lii doo doo doo juum heure amul doo juum ba tay tay bu ñu si lewoon am arafas ma daan ko. dina ñëw foofu léegi après Coly Faye nga ni doo wax nangul nañ la ko ndax jëf moo la waroon te ñëpp gis nañ état de physique bi ngay ne lépp indi ko macha allah Coly Faye bu bari ndax arafas gis nañ ko saison bi bëri na ci trois combats ce combat bi mooy trois deux combats te ñëpp gisoon nañu combat nekkul komba bu yàgg. nga jël ko mu am nag ay bruit bruit bi mooy combat bi yamatul ci ki nga xam te moom mooy Ada dafa laal Siteu laal rëg-rëg ñu gisu ñoom ñëpp après dañoo ñëw bien vrai que rëg-rëg nekku fi mais gis nañ ay entourage ku ci mel ni ay ñoom cheikh bu rëg-rëg gis nañ loolu noonu tey ba mu demee ba laal jàmm gën bi yëpp yow loolu parce que booy mi ngi la doon wax ni da ngay wut wàllu tey loolu noonu nan nga ci mën a expliquer non cheikh moom xëy na gars yi ñu ngi koy soog a seetlu rek mais sama combat gën a image nga xool sama combat yëpp moo yóbbu rëdd li ma dund moom la def si tamit li ma dund moom la def waaw loolu kese la mais amul leneen ku si nekk rek daa lu may dund ak yow ñoom sama bor lañ ma rek waaw. da ngeen a amoon problème yow euh, yéen da ngeen amoon benn problème seen biir ak waa Ada Fass daa foog daje woon xam nga ay problème problème non mosul am de à part signature ñoom mosuma daje ñoom furu signature. ok mosuma daje ñoom furu signature signature rek. daa uh-huh. daje ñoom. Arafas jàkkaarloo ak yow waat ne da lay daan yow tey ngeen dem di waxante ay kàllaama ay malfaiteur nga ay lii nangam loolu da nga doon jaay combat bi wala réellement loo xamante ni sa entre bu mën yéen yàq Arafas da ngeen am benn compte boo xamante ni seen diggante. non non kooku yow bu ñu booy amoon moom boo bu ñu booy amoon rànkiñ dafay ngeen dund xaw ma xaw ma la ma xamee ne si làmb laa xamee loolu ay dañ doon jaay combat bi noonu rek mais bu jeexee jeex na. isaan na ma dem seet leneen mais yat bi moom ku ñu ko dóor rek koy aal. course boo gis am na retour. Hmm. Ada dem na dégg nañ ko ci waxam dem na def fa 4 jours xam nga 3 jours ñëwaat am lu mu fa jàng ñëpp xam nañ ne Coly xeexkat la macha allah ndax sa combat ak général da nga xeex da ngay bëre mais sa combat ak Ada Fass ñu bari da leen a xaw a surprendre. parce que combat bi ni mu demee est-ce que yow xeex bi yaa ngi doon jàng xeex euh, bëre bi arafas Fass lañ joxoon favori mais xeex bi danga tegoon xeex bi doon jàng bëre sa sa côté entraînement bëgg nañoo xam Coly Faye ndax Coly Faye sa combat ak Ada Fass dana surprendre nag ñu bari. wax dëgg yàlla c'est que du mën surprendre mais dafa am déception boo xam te ne si nit ñi di moyes da nga am gars yi dañoo am déception ci Coly Faye. waaw il faut que ñu am déception parce que xamee wuñ ma loolu man maa ko. kenn jàpp ma ci galaaj ba ni may ñëwee si kër bi arbitre ni sifflé maa ngi sama ndam barki alxuraan karim kenn yaaxalu ma sama man maa ko yaax man maa def lu ma warul def dugg si laa am loo xam ne waruma ko def def yoo xam ne bu dem ba ci biir boole si yoo xam ne bokku xam nga rek am na yoo xam ne kenn mënu koo wax mais amul nit ku may doomu aadama yaaxalu ma ñu ma daan ñaanal ñoo xam ñaanal ñu jàppale daan def lan def ñu ma daan àndal tamit ñi ma jàppale lañ ma jàppale man tamit li ma daan def laa def maa dem ba ci biir dugg si lu ci bokkul sama laam kenn yaaxal ma ko kenn jaay ma kenn jaay ma si gàllaay kenn ma dara man maa def lu si bokkul. man ma ci bokkul. non nekkul lépp la ñuy mën a wax loolu loolu dañuy toog man ak sama staff ak samay xarit rek sunu agri ñu liggéeyaat si pour bu ëllëgee bañ ñu daal. Mm-hmm. ngay indi touche bu neex sa touche bu neex na trop. échange moom ay touche moom tal ma ko wax dëgg fa yàlla fan ma billaahi du ma du ma la nëbb de li ma gën a naqar sama àdduna mooy defet bii nii. Ah. billaahi wallaahi talaata damay fayu. parce Fatima moom laa la boo ko laajee billaahi bu dee wax ko dëgg la moom moom laa nii la ma daanee. man maa daan sama bopp man maa ñëw wéeru ci koom ak poids man sama doole moo ma daaneel. ci combat bi bala ñoo ñëw fa fële tey bu ñëwee ci combat bi Coly Faye da nga teel a pare. di xaar Ada Fass wax nga ko yoroon nga sa ndam ñu bari sax ñu ngi naan Coly Faye après ci biir enceinte bi lañ nangoo ndamam ndax gis nga pare nga Ada Fass nekk ci ay débat dëbam ba pare concentration. Euh, tey ci géew bi Coly Faye euh, kon li nga da ngaa indaale sa confiance bu bari moom moo tax moo tax nga taxaw di xaar Ada Fass wala lan la. du Ada Fass li ma ko def guleel ma def ko ni mu rëcc. nga ni tënk bi ma ko tënk noonu dëbb ko dëbb naa taf ko palaako. ko mu rëcc. moo man la am naa lu mën na xari mais tey euh, boo gisee bala ñoo ñëw ci bëre bi. man man naturel noonu laa mel. mais ba ñu bala ñoo ñëw ci bëre bi. waaw Ada Fass am na leen lapin bu mu teg ba nga tullee lapin bi ñu bari dañ na Coly moom. waaw yooyu yëpp ci yooyu yëpp ci heure yi ma la wax la yooyu yëpp ci erreur la. mais nappee bi yow xamoo dina ko tulliloo. non non. dafa nekk sa mu ngi koy mu ngi koy sëlax nii pour bañ ma laal ko. waaw parce que ñu bëri comprendre boobu Cheikh da ko doon bañ ma laal mais boobu maa ngi ñëw sama fukk dama ñëw rek. tulli mais après nga def la dara. dëgg fa yàlla moom ah, def ma dara mais bi ma ñëwee ba tëdd si guddi gi affaire jàpp na ma. sama xel nekkatul si défaite bi quoi. mais image bi si lapin bi la nekk. ma jégal yàlla suñu borom loolu loolu ma def noonu. waa ma koy jégal yàlla suñu borom. lu ma naqare la na li ma def noonu lu ma naqare la. ndax loolu mën na la ko waa. xamul dara non non. dëgg fa man ba léegi man ma laa lii ma ramatul lapin hmm. gën a fonk ma la. billaahi. Hmm. loolu bokk na li ma def noonu bokk na si li ma gën a naqari. ma koy jégal waa yàlla suñu borom bu baax. Ah. Hmm. dafa am loo doon wax am na benn instant boo xamante ne yaa ngi ci géew bi di wër di def nii am na loo wax ah, da danga da nga sa waaw da nga ne dañoo nangu sa ndam wala loolu wax foofu. non non loolu maa doon def samay jet rek waaw. Mm. Oh. wax. billaahi walaay daal amul ci àdduna may jàkkaaroon si sama fi dimanche amul ni ko yàlla sàkk non non amul mm. may jégaluwaat ñëpp di la xam ne def naa li ma waroon def yëpp. kenn yaaxaluma kenn jàpp ma si galaaj du kenn du doomu aadama kenn taxul ma daanu yaa suñu borom moo ma daanu du kenn man sportif laa gisoo ma daanu dama jóg dem sama yoon du cër boobu may toog foofu si géew di daal wala may jooy wala dara dama ñëw toog si dama ñëw jël sama yëre ka mukaay ni gars yi nañ dem ànd ak gars yi daal dem ñibbi ñëw toog xam ne tey man maa def erreur erreur ma def moom laa nangu si biir géew bi noonu moo tax toog ma si biir géew bi. ok hmm. euh, bi arbitre sifflé na Ada Fass féete gauche nga féete droite. combat bi gis nañ ni yi kenn ku nekk mu ngi doon liir adversaire am Coly Faye ñëpp dañ la xamoon ci xeex ndax dañ ne avantage am mooy bu xeexee ak Ada Fass mën bari commencé noonu nga gis ngay xeex mais xeex bi nga doon xeexee ak biir benn da nga ñëw ci géew bi xof wala da nga xam ne booy bi état bi mu yor daf la a dépassé mais sa xeex ndax gis ak général da nga xeex ba naaw mais xeex bii woon nga ko xam nga Ada Fass sax jël na ay coups li mu wax naan am na épercure boo xam xamante ne su ma daloon moom yaa ma gën a xam mais lan moo tax gënoo favoriser xeex bi ngay jàppante. non xaw ma woon dama ko doon boo gisee lu ne làmb loo gisee pièce la. Arafat fu ko mën xeex. mais sa xeexu. waaw voilà mooy li ma la wax. loo gisee pièce dama doon pièce ba far man ma ñëw poto si pièce bi. waaw moo la doon piège. man maa ko doon piège. mais nag mooy li la wax. dama waroon piège ba piège bi fa tourné sama kaw. moo tax xeex bi euh, waaw mooy piège ma la dama ko doon dama ko doon jéem a xeexloo ci kaw daw sàcc ko suuf mooy li njaay ma ko doon wax noonu. mais lan moo tax dëggaloo xeex ndax yow mën nga xeex. non dama jàpp ne fu ma ko jàpp dama koy daan te maa ko ëpp doole. te gisoo man ak moom ñu ngi leewaatoo may jàpp ay may jàpp ay baaraam di ko téye muy fipp mënul lañ. mais Ada tey jàpp la neen ci épaule bi la la teg yóbbu la top 5. lu leer la wax jàpp ma parce que c'est normal Arafa su ma daanoon ci action boobu noonu bu demee Fass dañ ma daanee daanoon bu ñibbi woon dañ ko cee war a rendi. mais yow lan moo tax parce si xam nañ li ma wax bu baax. ak moom xam nañ li ma wax. instant ma ñëw nga nit bu tëbee nga day oyof. saan mm. moo tëb Serigne Ndiaye xar ko jégale ko mm. comme noonu la demee rek man maa tëb si ko ak poids léegi nag moom dafa bloqué sama loxo bi sama loxo bi ma am appui bu ma war a am appui pour samp ko yokk moom la bloqué. mais yow nga ni Ada dafa mën mbot yow plaqué bi lan moo tax yow nga nga nga forcé ko ndax forcé bi mooy xam nga ne Ada moom macha allah moom moom mbot moom yëfam la mais lan moo tax kon nga forcé plaqué bi. dégg ni boo waree daa nga doon ngay doon man ak Cheikh dama toog fi waxtaanee ko man na ko Cheikh lii lay bëree ak lii ak lii. bi ma nee ba ci biir géew permation gisuma ko ci làmb ji ma ñëwee ci làmb ji gisuma ko de ma nee ci biir géew benn sànn ma daw ñëw foofu situation laa ñëwee ni ma da ni ma Arafaas daanee net permation la ma ni ma Arafaas boo koy jël bu jël benn tànk wala bul wéeru si kawam boo boo ko solee naax taxawal mais ma ko dëbbee naax foofu sama loxo gauche bi mu duggee bi mu duggee ma ko dëbbee naax damaa waroon taxaw rek la waat gën a téye sama loxo ba mu nii ma jéem a dugal sama benn loxo jéem ko jéem ko ma jéem ko faax mu dëpp sama kanam. kon force bi ndax. damaa mooy li ma la moo ma la boo war a daanu cuune doon cuune ba amul rek jël ma def yëpp man maa def erreur lamb déggoo ma la erreur bi ci am maa ko ci def. bi ma bi ma def yëpp. mais fan la. si biir lamb ji la. kon ma def ak naaw ak ma naaw ci kawam noonu dama doon taxaw ci Arafat déggoo kii dama doon dóor ba mu tëdd. keroog. Ah. dama waroon bi nangu ko samay loxo. mais yow dóoroo ko. waaw dóoru ko. Ah. mais mooy mooy li ma la wax rek. mooy erreur bi ma def rek. ma def. Mm. Mm. Ada Fass mbot bi mu la mbot est-ce que Coly yaakaaroon na ni jëli bu rëy bi la Ada Fass daan euh, dina la ko daani sérieusement parce que gis nañu da nga da nga mel yow gëmee woo ko ba nga jógee. wax sama àdduna bu may soog dal ni daanee ma nii muy kontaan làmb ni daanee ma nii. lii ku ma ko mos a def wër naa sa ginnaaw wër naa la ndomba wala nga dëpp moo tax man la fooyoo ma ko ma koy ñaanal nag yàlla ko ndam bi di ko moom champion la lamb da koo yaakaar di ñaan waa ko ñoom ni nga ko jàppale ni nga gën a jàppale noonu yàlla ko yàlla suñu borom ndam bi jig bu amaatee combat feneen fu bokk si ñun yàlla ko fa yàlla may ndam waaw ma ko ñaanal yàlla ko ndam non champion la ndaanaan la ndaanaan la moom champion la champion man dama koy nangul maa ngi koy félicité bu baax yàlla na yàlla defal jàmm jàmm ci yow rek naa la xamal ne ale boo am na retour.